sant yàlla bu baax a baax julli sëlmal ki sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sant sunu ñaari wayjur bu wér gërëm sunu wasila waaye gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa ne yéen a ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko nag eh, ci maladie tëdd ci hôpitaux yi ak ñi weyaale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi feti ginnaaw yàlla génne leen waaye ñi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo nekkandoo woon ci ka suuf te defuñu yàlla lu tax ñu jiitu gi ñun ñu fi desandi lu ñu yàlla lu tax mu bàyyeen di ñu su ne di leen ñaanal fa ñu tëdd gënal leen fi ñu bàyyi ko ñi ñu bàyyi ginnaaw yàgg leen a ñaanal waaye ànd ak lu mën a xew ñaanal leen àllaaxira ak aljana doon seen noflaay noflaay googu ñu ngi koy ñaanal képp koo xamante ni kilifa diine nga ci kaw suuf di la ñaanal jàmm di ñaan itam yàlla na la fi yàlla bàyyi nga yàgg jiite kilifa aada itam naka noonu yàlla tàppe seeni xol ñoom ñëpp ñu nekk benn sottal projet yi waaye tam bépp projet boo xamante ni sémb nañu ko ci réew mi rek askan wi yàlla nañ ci jariñu askan woowu nag ci laay desandi sax nuyu leen kenn ku ci nekk rek gebb loxo moo xam da toog di seetaan sa ngeen gi télé di la 2STV wala nga may déglu ci 88 point 4 seen rajo origine FM ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura di leen ñaanal xéewal gu sax dàkk xeewal googu ki bàyyi ak njabootam bàyyi ndey bàyyi bàyyi bàyyi jabar wala mu bàyyi borom kër eh, dem jéggi ay kilomètres yu baree bari xéewal googu yàlla na ko yàlla defal ki tukki gannaaw ba ñu leen nuyoo ñoom itamit ñaanal leen jàmm la leen tax a génn réccuteef bañ caa am saa su ne yàlla ñuy dégg njaboot gi ci jàmm ak salaam yàlla def ci seeni i dara waaye sàmm leen ba ñu dellu siwaat ci seenu njaboot ndax yaakaar naa ne xolub tukkikat boo ubbi bu ne delluwaat ci ak njabootam mooy li ko gënal kon yàlla na leen ko yàlla defal nuyoo bi noonu lay demee saa su ne rek mu ëmbaale ci sama jarbaat ak sama doom tey ñu xëy kenn ku ne gàddul ma dara indil ma barki yàlla bu ma bu ma leen amul woon téléchargé leen sama góor. bu la ëpp na. waaw bu bi rek xam nga moom laa taalibe Cheikh rek xam nga nu juddu rafet maa ngi civilisé day dem bin bin bin bin kor lay laa kor lay laa ndànk méttiwul <laughs> ma ne ko taalibe Seydina Hadj Malick lanu maa ngi lay nuyu yaay di la ziar baax mais yow sa noir baax na. man de nee naa këlañ. këlañ <laughs> parce que parce temps yi moom. nii nga koy defee doy noir. nii nii nii saf na la. temps yi de 16 ans la xaw a mélangé la xaw ma jabase. man naam saf na gars yi de. Ah, léegi damay dugg saal. temps yi foog ma dem ci saal bi affaire na ci moom. fexe leen ma ma dugg saal dégg nga ay nelaw moom ay nelaw moom a gënal lu ma mën a am. <laughs> mère maa ngi lay nuyu di la ziar. xanaa namoon na rek namoon naa ko maa ngi lay fay xaw lool sax sàmb. nam sama rakk ji ndey petaaw xam nga du xuloo bi nam naa ko. askan wi namm la maa ngi leen di ziar di ziar ñi delloo sama yaay ji soxna Xadi Sam ñaanal ku ak yaay yëpp nuyu Tiwaawan ga ma bàyyi ko rawatina xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ziar bu baax a baax ak njabootu maam Seydi El Hadj Malick yëpp di nuyu mboolem ëttu këru diine yi ne ci réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ziar nag yaay booy xam nga soxna nday Marème si bu sëriñ Moustapha Jamil waaw ziar sëriñ Mansour si Jamil ak sëriñ Ahmada. sunu xarit sunu lépp ndax xam nga samedi bii passé. Mhm. la woon gàmmoo ga woon ci Louga. Louga di gàmmu Seydi mhm. dëgg dëgg diini jépp daje woon fa. Mhm. sëñ Mansour si Jamil na mu taxawoo. Euh, taalibe yi. wax dëgg yàlla am na solo. waaye nag ñu ngi ciy ndokkeel bàjjen Ndeye Marème. ndax nit bu lekkee aloom na ko gërëme coy. ñu ngi ko ci ndokkale bu baax a baax. dëgg la di nuyu Serigne Mouhamadou Mansour Sarr. ndeysaan séddoo di sunu kilifa. sama xarit waa xam nga bisam biir samedi la ca Buudi. xam nga lu ma neex ci moom. waaw dafay boole ñaari mbir ci taalibeem. mooy dalay ñaanal ñaagal la. ñaagal la waaw xam nga mooy fàtte yooyu dafa am fàtteetul kitaaw ak fàtte yi géwël te moom daf ko mokkal. ñaar yëpp <laughs> ñaar yëpp la mokkal mokkal da fàtte mokkal da fàtte moo tax ñu ngi ko nuyu Sarr eh, di ko. yàlla na yeggale waaw yàlla na jàmm. Eh, naka Mara Cheikh Mara Cheikh ma nga fa. sama xarit waaw sa sa ba. macha allah gis nga njaw hormis kaf euh, euh, yeeg yëpp. dëgg la gis nga nit ku baax dafa jar a am. dëgg la parce que loolu la ñuy doyee sëriñ. Mhm, dëgg la du ne rek salaamaaleykum addiyee jaa ngi nii. déedéet déedéet léeg-léeg da toll foo xamante ni da ngay dem sa sëriñ mu defal sa affaire. dëgg loolu dafay am. daf ñuy dal ci Mara Cheikh moomu dal ñu ci wéyjuram. di ni ñu ko waxee sëriñ Mansour Sarr. dal ñu ci sëriñ Abdou Karim Mbacke waaye mhm. dal ñu itam lool lool euh, ci ki nga xamante nii mooy sëriñ Mbay si Abdou Ndiol Fouta. Mhm. ak soxnaam su baax soo soxna Penda Dial. moom bu ma duggee këram daf may yeewi. Euh, moom moom <laughs> Ndiol Fouta te man yeewi day géwal. barki Rasulaay mi ngi leen di mi ngi nuy bëgg a rey géwal yeeg taalibe géwal yeeg taalibe yi soxna Penda ci man man mosuma gis boobu mer mais li ma gën aay tamit ñu ngi toog c'est que dañ c'est que bu ma nee taalibe yi rek ji dinañ gàmmu ji wala ñu def spécial doxantu doxantu léeg-léeg yooyu dañ ko war a def de doxantu kër gi wala du ñu ànd ak caméra du ñu ànd ak dara nag équipe bi rek ah, ñoo baax aka ñoo neex a fekkee waaw gis nga mais li ci gën a neex mooy sëriñ day waxtaan ak taalibeem dëgg la sëriñ taalibeem daf koy mën a bëgg a jot jot ko ndax taalibe du toujours ngay nekk déedéet wallaay du toujours ngay nekk du toujours lay neex waaye nga jot sab sëriñ mu delloo si la ne la xoolal diw dëgg la xoolal exemple diw xoolal diw na mu daan waxtaane xoolal li yàlla waxoon nangam ni ko mag ñi répété nga dellu siwaat lu bari denc yow kon Mara Cheikh ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal mhm. yàlla na ko yàlla bàyyi ak bàyyam boobu ñu sokkorloo ne asamaan ak suuf mu gunge ko ba mu ñime en tout cas Mara Cheikh ñu ngi koy nuyu bu baax a baax soo ko déggee rek sa xel day dem ci sëñ Moustapha dëgg la ci lépp macha allah waaye nag noonu lay mën a demee caab ca ndigin dëgg la rek moo tax yaay ma ne ko moom ndijaayam mooy baayam mm. bàyyi may ndijaayam mm. ndax soxna asukan mi meññi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si kii ko meññ di alaaji Abdou Hamid kan mm. gis nga soxna Assou Kane moom moo soxna Aminta kan mm. mi meññ soxna Sufiyatu Baara mi meññ soxna ki ne mi jur Marasia mm. ñoo bokk ndey ak baay moo tax soxna ki ne ma ne ko sa bàyyee sa ndijaay sa ndijaayee sa baay moom mooy tubaab dem na Paris jeex na lépp kër Cheikh la. yaay booy nuyu la ziar nuyu sama rakk ji. jërëjëf dinaa ñëw ci actualité nag. actualité actualité waaw. Ah, da ngaa indi waaye am na lu ma indi bu nday ñëwee ba pare. jarbaat. impañ baax Daba Diaw defi la génn ak man. kuy Daba Diaw. Daba jaw sa sa sa nit ma booyaloon. ñu bàyyi nga commencé fii sama diggante ak Daba Diaw. bàyyi naa ko tranquille. ah. lu waral loolu. man maa bàyyi Daba Diaw ci sama. <laughs> Ah, waaw Daba sama yëpp bàyyi sol mu ne ma nii sama aada Daba Diaw man la ko a jox ma ne ko kaay ma wax la nag man nga may lu ne nangam ba mu des xame. robe bi yeeg baax yi Daba jaw di joxe. man de nee naa ko bii lay ñëw man war nañu ñëwaat. ay lii lii ba ma ko ñëwalee kenn xamul ban année la woon lii. fi ne nii lenn rek ma neex ci moom. boo hmm. ñibbee yàgg cag cag bee jiitle xam nga yooyu la lay defal kon bàyyi ma bàyyi ko xel waaw waaw <laughs> la yi lay def yaa ma booleeg moom ba may defal yi kon yàlla sa jàmm yàgg jërëjëf di la a baax di am mbégte saa su nekk may jàkkaarloog yow <laughs> mais black and white moom macha allah waa saa a rafet <laughs> waaw daba la macha allah du la ah, mm. moom tam fi mu génn nooy na nepp mm-hmm. Njaw moom dafa ah, <laughs> <laughs> a baax di ko ziar di am mm. seetaan sur la sama yaay ji dana Youssou Gueye Bamar mi si bétuwaat bi si Ndakaaru yaay Awa sama rakki xol di ko ñaanal suñu way dawlu yëpp tey nag si àllarba ji ñu fas yéene àndaat ak seen émission kër gi mm. waaye Chérif maa mi na sama doom paaj maa lay nuyu baax a baax waaw sama Chérif maa ngi koy bàyyi xel bu baax a baax mm-hmm. macha allah fa tabarakallah borom café gi borom ataay ji lépp yow la li ma nday indil sax yow la ah. donc euh, maa ngi lay nuyu bu baax a baax Chérif yaag awa yàlla na seen jàmm yàgg ak Pape macha allah li ma leen euh, dellu siwaat nag ci seen thème de la semaine ni ñu koy defee saa su ne mhm. àndandoo ak mbokki téléspectateurs yi ci 88 628 14 13 wala 00 221 33 841 23 34 mooy numéro international bi ngeen mën ci jaar dugg rotal seen xalaat ci li nga xamante ni moom la yëkkati jigéen ak émigration waaye nag comme njaw dafa wax ne euh, dafa indi actualité te saa su ne moom la ñuy ubbee ci gàttal rek njaw loo ñu indil tey euh, euh, ci actualité. waaw maire li ma la indil ñaari yëf la. Mm. bu njëkk bi mooy sunu réew. Mm. war nañ ko sàmm ñu sécuriser ko. Mm-hmm. ci du ñu xaar nit tamit ci lu ko neex mu wax. Mm-hmm. parce que espace bi ñu bokk. yow mi nga xam ne da nekk intellectuel te ni jàng mhm. sa sa sa njàng mhm. warula mën a xiir ci nga am liberté ci lu la neex nga wax ko dëgg la parce que fii Sénégal toll ci ay problème mhm. toll ko ci ay dérapage ak i dérive bis bu nekk nga dégg ñu ni rey na nanu nit bis bu nekk nga dégg ñu ne cambriolé nanu nit am intellectuel boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci réew mi nga mën a toog ni fàng ni njaayum yàmbaa dañ ko war a légaliser loolu ñaaw na ci réew mu mel ni Sénégal man de dégg naa loolu ñu naan am na ko ne njaay mi yàmba dañ ko war a mën a légaliser dañ ko war a mën a loolu lu ñaaw la loolu lu ñaaw la parce que yi tamit euh, dafa dama ci net lii dara benn anecdote mm-hmm. dafa am benn nit bu ñu mas a woo ci barab tegal ko ñetti yëf mm-hmm. tegal ko liir tegal ko woy juróom tegal ko butéelu sàngara mm-hmm. ne ko ñett yi faaw nga def ci benn wala ñu rey la woy juróom bu jigéen ñu ne ko da ngay tëdd ak moom <coughs> loolu diis ci moom mhm. ñu teg liir bi teg paaka bi ni ko nga rendi ko mu mhm. diis ci moom ñu teg butéelu sàngara bi ni ko def euh, nga naan ko mhm. bi ma xoolee ñett ñaa ñett yi tëdd wuy juróom diis na ko rendi xale bi diis na ko mu ne na naan butéelu sàngara peut-être moo gën a woyof mais bi mu naanee butéelu sàngara bi la mu doon bañ ci yeneen ñaari far na ko dal parce tëdd naa way juróom bu jigéen. parce que boobu àndul ak sangoom parce que man di daan mm-hmm. mais lu mel noonu boo ko bëggee indi ci réew ci réew moo xam ne bu ñu dee téeméer 90 pour cent yi boroom kawar yu ñuul lañu. waaw te wolof ni wax ma sa ndaw yi tey moo woon la sa mag yi ëllëg. Mm-hmm. yow nga ni jàng nga xam nga lu ne. war a gindi sa réew ñu am fu lay xaar. Mm-hmm. nga mën a toog ni léegi dañoo war a libéraliser ku mu neex nga jaay yàmba. walla nga tux ko mais loolu ñaaw na ci réew mi et puis ñëpp ñoo war a déplorer loolu ñu combattre ko parce que it tamit waruñoo bàyyi réew mi ku ci nekk rek lu la neex nga wax. na waar lu la neex nga wax lu la nga def loolu ñaaw na ci réew moo xam ne mag ñi lu ne def nañ ko fi. doy na waar mag ñi lu ne lañ fi def. ba mm. sécuriser réew mi. Mm. ba Sénégal am ay bànqaas yoo xamante ni tey. Mm. vraiment ñu ñuy tudd fu nekk ci ci ci àddina bi. parce que gis nga yaay mbay gis nga Sénégal gii. diine rek nu jik daara rek nu jig leneen lu ñu bëgg a muy ay culture yu jàmbur ñu mm. bëgg koo installé fii du dox mm-hmm. kon nag il faut gars yi ñu arrêté wa parce que mënoo toog ci sa salon rek jël say affaire naan ba sa euh, ba sa xol sedd sa ndox mu sedd wala sa boisson toog lu la neex nga wax wala lu la neex bind sànni ko ci espace public bi bu ko defee ñun ñi nga xam ne suñu moom dañ ko dékk micro wala da koo bind journée yi en tout cas bind nañ ko. Ndoye Bane nee na na ko légaliser moom ca biir këram te bañ ko légaliser. voilà mais mais mais loolu dafa ñaaw. yow kay ku mu neex sa kër ah. nga jëmbat fa toolu yàmba. waxin bi ci boppam sax moo ñaaw. dafa doy waar dafa doy waar est-ce que est-ce que noonu la ko waxee itam. non euh, parce que. Euh, parce que réew mi dafa naqaree waxee itam de. waa réew mi dafa naqaree waxee. waaye tamit bu ñu demee ba jël ay exemple ci yeneen i réew ñi ñooñu foofu moom légaliser nañ ko mais ñooñu lay seen culture lay seen cosaan lu noonu. mais fii presque légaliser nañ ko ñëw. non. ci ban côté Sénégal fii waaw. yow ñaata nit la ñuy jàpp si yàmbaay kon bis bu ñu ko légaliser xanaa dëkk bi tàkk. waa voilà loola. parce que ñaata dañ ko sax man dama foogoon sax man dañ ko légaliser ndax ko. kon légaliser loolu kon <laughs> a am. waaw euh, wax bi moo moo moo jaaduwul. moo jaaduwul parce que tamit euh, liiru wolof ne euh, ku ndóbin rey sama. boo séenee lu ñuul danga naan bëxër ñett bi ci des tamit mooy ma dellu siwaat ba tey. waa ci xale yu jigéen yi. nii ndax artiste laa animateur laa am naa aw tur ba lu ma neex ma def ñu ni déetawaay li gën a sacré ci doomu aadama waxuma la jigéen. Mm. nga taxaw ni loolu fana ko ak eggu fa. muy lan. maanaa awra quoi parce que euh, def silibu neen photo def yaramu neen def ko ci espace public bi ñëpp jot yi ñu di la wax. nga di affaire bi fa ñu ko teg eggu fa man sama dund laay dund nañ ma may jàmm wax loolu ba mu neex na nga xëy parce que jigéen ji watum nel looy wax yow yaa ngi watu am nel nit ñi di la wax ñu attaqué la nga dem abbi musóor musóor di wax naan baal leen ma damaa juum gisoo ma ko noonu parce que yooyu la war a arrêté ci réew mi parce que ñun du ñu bàyyi. ba pare il paraît que te sax tuumaal ki ci doon kaas na na na jégalu euh, taxal ko ci daal ne ko ne koo ko mën ak moom. voilà xam nga ginnaaw bi dañ lay duural xam nga ginnaaw ginnaaw non xam nga ginnaaw bi ñaan ku ma fenal ma sasal la c'est ça ginnaaw bi mi ngi wàññeekuwaat di wax naan man ma turam mais yooyu yëpp sax du intéressé ñu noonu xam nga lan moo nu intéressé mooy gis nga sunu réew mi noonu dañu bàyyi ay gone yu ndaw parce que koo xamante ne quatre-vingt-quinze nga juddu yaa ngi soog a am vingt-six ans waroon naa am leneen lu nekk sax xel jël sa bopp exposé ko ca yar ba comprendre nga li ma ñun sunu doom yi tolloog moom waaw yar ba yar ba la xam nga sunu doom yi tolloog moom génération dañuy jàpp ni loolu dafa valable te loolu valableul loolu valableul est-ce il faut gars yi ñu arrêté booy wut bës bës wute ko ci beneen façon parce que jigéen dafa am lu ko yàlla dénk mhm. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum laa dégg mu ni dafa sa dem ci benn réew mm. mu ni ki lay ganale moo lay yóbbu fu ne. Mm. ki mu àndal mu di ko woon réew mi de yóbbu ko ba ci benn place boo xam ne dañu fekk ay jigéen yuy fecc. mais jigéen yi dañuy dañuy xawee ko maanaam seen seen dënn du ñu ko muur. Mm-hmm. ki ko fa yóbbu ni ko lii lu ci diine wax mu ni ko habit de confiance la. Mm-hmm. parce que jigéen dënnam dañ ko ko dénk. Mm-hmm. ndax ki ci war a nàmp ëllëg donte amul doom sax nàmpul mais amul droit génne ko mais suñu demee ba ci réew moo xam ne Seex Seydil Hajj Malick daj na fi lu ne pour instaurer diine maam Cheikhul Khadim def ko naw lay diinam yëpp def ko benn xale bu ndaw bëgg a ñëw perturber loolu jël jaasi dagg loolu mais bu ko parce que il faut état nekk arbitre ci affaire yi parce que réew mënta ñàkk cravage il faut nit ñi ñu yar leen. mais pays laïque la ñu wax de. mais pays laïque waaw mais pays laïque tamit lan lan mooy kii nu mu tudd. mais il faut nga respecter droit non man dama gisul c'est-à-dire bu ñu xoolee ba xool ko xëy na actualité bi moo moo dugg ci loolu ndax lu ci bari sax euh, viwu jàmbur duñ ciy wax. Mhm. Euh, surtout mu nekk nit koo xamante ni nitu média la woon. mu nekk itam koo xamante ni xale bu ma bëggoon la man franchement. je ma posais la question ku nekk wan naa la photo yi man leen est-ce que kii diw mi ñi mi doon wax di def wax feeñ la wala dara. Mhm. xam nga vraiment mu nekk lu ma choqué parce que man dama ko bëggoon mais nag euh, comme ni ñu ko waxee rek pays laïque la ñu nekk taxul ñu def noonu te gisuñu beneen diine bu koy def boo xamante ne dañ naan kii du jullit ñun jullit rek la mbokk asalaamaaleykum allo asalaamaaleykum waaw allo soxna Mbaye waaw maa ngi ziar ndax nu kazalika mbokk ah, mm, damay leb tur nag lebal naa la ko euh, gis nga jamono ji li indi lii yëpp waaw mooy waajur yi ñoo démissionné. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que nga nekk ci àdduna. Mm-hmm. bëgg leen xale da nga koy yaree ci da ngay muñ. xale da nga koy yaree ci jom. wallaay dëgg la. xale da koy yaree ci fulla. mbay mi soo ko yarul sa doom rek pare. wallaay dëgg la. parce que xale yi fi mu nekk nii dañuy eh, dañuy jut gis oto yi. gis appartement yi. nu mu mënee xoolee sa doom. day pettaaw mii elle était mannequin. su ko neexoon mu wuti appartement am di def lu ko neex. su ko defoon du fi toog de. wallahi azim. billahi du fi toog. jël sa doom. Hmm. mu ñëw nga gis ko mu chaque jour mu jël greffage quatre cent mille. Hmm. portable. lu xew ma nga ca taxaw nga gis ko mu def yaramu neen ñëw xaar ko di la ko jox nga di ko jël. wallahi doom dañ koy yar dañ koy juddu naan ko da ngay am jom. Hmm. Mm. man dafa am lu nekk sama deret ba nga xamante ne sama yaay daf ma ko moo ñaane yàlla la ko yàlla yërëm. ndeysaan. Birane Duma nag jaa ngi leen. yàlla na mm. xëy ak. allahumma amiin ndax dafa def ci man loo xamante ne bu ma toogee sax dama koy yara sama daw. wallaay bu ma nee am naa sama doom boo xam ne ingénieur la. Mm-hmm. ndeysaan. wallaahi ak maa ko jënd silib. ndeysaan. maa ngi dem jënd ci silib ñoo jox ko. ndeysaan. ñoom ñëpp sax dama leen yar ci yar boo xam ne toog leen ci kër gi. utuñu xarit utuñu àndandoo. ndeysaan wala soo doon suñu kër da nga naan man maay moromam wala papam sama njaboot noonu laa leen yare dama leen yaree gore waat ci la ko bëri. macha allah. mais léegi li am léegi mooy que ne xale yi dañuy nekk dañu leen dañuy ñëw rek bëgg a tekki. Mm-hmm. tekki boo xamante ne xamoo lan la. wala vie boobu passé na. waaw ndax gis nga gis nga nit xale day am jom. mais xale boo buggee taxaw tey jii rek nga ne tey dinaa tedd mbay loolu da ngay nax sa bopp. wallaay da ngay nax sa bopp. tey jii moom nu am na ñoo xamante ne am na jamono ñoo xam ne tey ñu ngi toog di jooy. Hmm. nañu dellusiwaat suñu xel te jël suñu njaboot gi yar leen. yar leen ca ba muy teel. yar leen ci jom yar leen ci fulla mbaye. dëgg la ñitti ca ba muy teel man du ke naaguwuma ci lenn de. déedéet. waaye dafa am loo xam ne da nga koy yaree sa doom. jom doo doo amul amul man sama doom yu góor yu jigéen man bañ naa ko góor nii sax gis nga bu ñu nekk ba ñu nekkee xale. bu ñëwee dama leen di damay toog seen wet di leen di xeentu ndax ñu ngi xeeñ cigarette. est-ce que. dama dem xeentu di mhm. ndax ku fi ñu génne ma xeentu leen. waaw waaw. def nga ci ñoom loo xamante ne bu ëllëgee da ngay toog naa leen kat lii bu ko def lee bu ko def bu amee sa soom bi joxe sa doom ñu lekk. dëgg la. nga am sa mbaxal mbaxalal. wallaay dëgg la. tey ji amee ganaar lekkal. Mhm. wan ko kat kii nii nii li mu am wërsëgam la. yow yàlla dina ñëw. wallaay dëgg la. duma garder liñ bi man daal kontaan naa maa ngi leen di. gërëm ñoo gën a kontaan sa participation. seen seen li ngeen seen émission bi riche na li ngeen ciy wax loo xamante ne nit ñi nañu dellu seen sago. jërëjëf. loolu rek la maa ngi leen di gërëm di leen di sant. am na solo mbokk. da nga leb tur bi waaye li nga wax dafa am solo jarutoon na leb ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. c' ça la 2STV quand c' est important c' est la 2STV mais quand c' est càmbal càmbal il faut chercher ailleurs loolu moo waral 11h midi bi ñu jël ko jagleel leen ko yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk seen biiri kër ñu àndandoog yéen ak seen njaboot. wax na dëgg doom dañu koy yar mi nga jàng tubaab na. waaw quand c'est important c'est la 2STV quand c'est cambal cambal. barke El Hadj Malick c'est <laughs> rek Sénégal jëm xam nga tubaab yi nag dafa neex noonu la neex nga koy waxee. <laughs> anglais beeraw. waaw <laughs> kenn du ko bind nag soxna Mbayang faute bi mu def tey. déedéet kenn du ko bind. mais ba keroog bii fay de ñëwee woon fii 2 bi. loo ko ah, laaj boo loolu loolu duma ci dellu si waat jëlee kooku ci ligne bi kooku beneen affaire la. mbokk salaamaaleykum. waa bisimilah. waa kay Seck waaw Seck Seck. waaye tey de maa ngi lay ziar papa. yow da ngaa baax loolu te am xam-xam te yow sa wax yëpp man du ma dégg nga làkk benn baatu arab ndeysaan. li nga waxoon ci euh, góor gi euh, sàngara si loolu boo demee ci addis mi ngi ci. Mm-hmm. li nga wax yëpp alxuraan la. dëgg la ñu ngi nuyu Mbayang di nuyu Ndeye Pitaaw. ñu ngi lay fay bu baax papa. waa ma di gàcce suma waa jooju xam nga Faatihatul Kitaab ak Faatiha. waaw. Faatiha Faatiha ci la lépp nekk. dëgg la. am na ci benn aay bu ñu wax maanaam iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin waaye léegi dañu nëbb allahu bi mhm. boo koy liggéey dañ ci boole allahu iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin mhm. moo nekk fa way xëyut ahla lahun lépp ci loolu lay daw waaye nag nit ñu baax ñi dañu koy nëbb dëgg la waaye yéen yaa ma dugg ci thème bi waaw keroog wax naa thème bi boo demee ci suuratul Fatiha innaa fatahna laka fatahan aaya bu mujj bi mhm. mooy muhammadu rasulullahi wala sallallahu asiddaahu ala kufaay ruhamaahu baynahum turaaro sujura yabtaquna fadla min allah mm. wa rilwaanan simaahu fi wujuuhi min asara sujudi salika ba mu jeex imi ci biir ñaar fukki niim ak ñaar la mm. boo demee ci aali imran fii na li naasi ci la yàlla dajale ale li adduna ak alaxira lépp mm. ñaar fukki baatee ñaar la ala nasar yoonte bi rek la ci yàlla wax ñaar fukki baatee ñaar la lépp ñu ci biir aaya boobu. Mhm. kuy tux cigarette kuy naan sàngara kuy njaaloo kuy def lépp mi ci bi waxoon naa ko keroog. Mhm. ñu bari di la woo waxaat ko ne ko nit ñi jël. Mhm. man waxuma pour nit ñi di ñëw dama ko wax pour nit ñi di ci jariñu. ndeysaan loolu moo ci solo. ay boobu ay bu doy waar la day fale day fulle. waaw ah. ah, ah, ah bi mi ngi tàmbalee ay bi mi ngi tàmbalee. papa papa papa waaw loo indi si actualité bi bul fal fii bul fool. actualité xam nga moo alxuraan. xam nga boo xam alxuraan dafa am dëfu ak jëlbu. waaw yooyu nañ alxuraan am dëfu dëfu jëñ ak ñolli. papa Youssoufa. waaw yooyu nañ ko denc comme secret la. nañ ko denc waaw waaw déedéet déedéet déedéet ma dëfu ma loolu du ma ko wax ci alxuraan du ma ko day jëñ day ñolli rek. dëgg la léegi loo indi si thème bi. ah thème bi li li fii ni kenn mën di passé loolu boo demee ko suuratul Faatiha ay boobu képp ku am sa doom bu juba di boo ko defalee moom dana jub. am na solo jërëjëf Seck jërëjëf Seck ñu ngi koy jaajëfal baax a baax. am na solo ñu koy jaay fii bu ñu fol fii <laughs> waaw damay bañ nit ñi duñu woo appel yi ñu laaj nu ñuy falee nu ñuy folee nu ñu falooguñu <laughs> te te ñun falooguñu <laughs> xanaa mu ngi noonu daal uh-huh. moom xëy na moom dinañ ci dimbali ndax nu falu uh-huh. macha allah comme mooy parrain wu kër gi ñu ngi koy nuyu bu baax depuis Kër Massar di wax ne def leen ni moom su ko defee rek ngeen dugg rotal seen xalaat uh, ci uh, actualité bi njaw indi jigéen ñeek uh, yiñ ciy dégg mënu cee ñàkk su ko defee ñu waxtaan naka la ñuy def ba yar sunu njaboot waaye ci kaw yar boobu itam moom mooy indi ñu dem ba bitim réew itam di fa dund loo xamante ni mën na indi problème sunu cas bi ñu amoon wax nañ leen ne ndaw si mi ngi ci benn hôpital psychiatrique bu nekk foofu ca Mauritanie ñu ngi ma ciy defal ay démarches démb rek pour dem seeti ji ko pour xool naka la ñuy def ba génne ko mu gisawaat ak ak njabootam waaye dellu siwaat Sénégal ni ma leen ko waxee démb nag nañ ci bàyyi xel ki nga xamante ni dafa tàggali ko xelam te euh, mën naa am du tàggali ko xelam 100 pour cent parce que doo ko gis mu sol yére yi salté doo ko gis mu def dara mais mën nañu seetaan ba jëyee am parce que heure bu génnee dem na attaqué ji ña mu doon histoire paaka lay yor kuur lay yor wala lan lay yor te suñu borom léegi defe naa ni pour mu jël bakken mën na ko defee sax ci ab kaasu attaaya rek nit ki yor ko xaañ ko nit ci bopp mu nekk ndang ñu ne deena donc yooyu yëpp bala ñu ko def te yaa ngi dégg ci suba ñi ngi wax ci Maroc am na benn sénégalais boo xamante ni mm-hmm. am na kum fa boom déjà information bi dañ ko dégg noonu rek euh, xaw ma ndax se avéré ou pas mais yooyu yëpp yi koy waral mooy daal mm-hmm. Euh, nit ki bu xasee ba tàqalikook sagoom nañ ko encadré bu nekkee bitim réew nañu fexe ba mu dellu siwaat ci réew mi ndax yaakaar naa ni mhm. euh, dina dimbali ay mbokkam dimbali ko moom mi nga xamante ni moom moo fa nekk alors jarbaat nga am ci ay élément ci maa dund ci kaaw ñiy tukki mhm. ak ñi yóbbu seen i jabar ak ñoom seen lan ngañ ci indil tey waaw élément yaa ngi fi mais dama bëgg sànni tuuti si njaw li mu doon wax actualité bi waaw parce que xam nga lépp dafay delluwaat si crise des valeurs mhm. ndax amee benn doom mu leer na benn rek la ko bay bayal parce que boo ko bay bayalee ëllëg si biir moo lay jooyloo léeg-léeg nga am ngeen ñu ne benn bu jigéen la. waaw léegi nag dañ koy bay bayal dañ ko def dara. topp ko ci li ko neex ak li mu bëgg nen bu ñu xoolee xam kenn ko takkal suuf <laughs> xajam baa tax doo ko mën a lekk di ko wanga wangal rek waaw léegi nag bu ko defee mm. bu la bu la boo ko bégalee tey rek bu ëllëgee bu màggee jooyal la xam nga tataa mm. doom boo ko yaree waaw sa kanam ak sa gannaaw lay bokk yemal day am yu muy dëgg la di ko def mais am na doomi gor yoo xamante ne jomb nañoo def yenn yi dëgg la wallaay dëgg la bu baax a baax si éducation xale mm, yi parce que ëllëg si biir aussi yaay yi dañu nekk coupable dëgg la parents yi da am nañ ci part de responsabilité bu émission bi ba doon def euh, fële ci benn maire bu dugg maire Khady Diop maa ngi koy nuyu de passage mu wax lu am solo mm. daf ni man samay doom mm-hmm. awma complexe ci wax leen fi ma jaar wallaay noonu la ni leen ci néegu ñax laa juddoo noonu la nday day wax ak doom dem sëyi ci néegu sang ba tey ma mën a dugg ci ci terrasse yooyu di ko wax sa njaboot wax leen fi nga jaar dafa am solo mm-hmm. mais gis nga maire lu ci ëpp euh, parents yi dañu dañu vraiment dañu euh, dañu séparé ak seen jaboot gis nga dañuy wax ne parents yi dañu démissionné wu par rapport éducation wu xale yi démissionné wu nit de dañoo jël àdduna ak jamono. def ko ci seen bopp. poñe ko waaw xam nga àdduna ak jamono. boo fu may jëlee ceeb. fu may jëlee diwlin. nu may def ba tabax. nu may def ba dundal xale yi jàmbat nañoo jàmbate jàmbate jàmbat ba fàtte yi li nga xamante ni moo am solo ki leen di relever te dañuy wax ne teraanga bi ëpp ci àdduna mooy doom ah, xam nga xam nga la sama yaay ji ko bëgg naa bépp biye mag Mm-hmm. waaye bi ma gënal mooy bi jóge ci samay doom te sunu borom defal na ko loolu dafa nekk loo xamante ni moo war a ñor way jur mm-hmm. doom jooju nag mm-hmm. du ne ci futteeku la la koy joxe du ne ci taxawaalu la la koy joxe waaye nag ci na ngay comporté woo ak moom ak la koy wan am nañ doom yoo xamante ne xanaa amoon li leen tax am jom li leen taxa mën a nekk ci jamono mooy nañu gis seen waajur di ko doxale ci lañu xool roy ko xam ne sama waajur bi ñàkk na waaye taxu koo ñànki xam ne sama waajur bi kat mënoon naa dem defi ji nangam waaye defu ko mhm. li mu def rek mooy boof ki suñu kaw kombanat kon nag du ñu gën a gore fa mu jaar ba dëggal naan dama fay jaar neccaatu fa mhm. ah, xale ba de dafa am na doom yoo xam ne du ñu ku mukk du ñu sumee xale man gis nga bi may jógee Mbàkke vingt deux ans mhm. <laughs> laa am booba laa gënoon a nekk maire ni vingt deux ans laa am booba laa gënoon a nekk maire ni xaw ma lu dul woon musóoru ko jël ko lonk ci baat bi sol garan boobu ca laa tàmmee grand boobu ba fii ñu toll mhm. parce que lan yar baa tax la ma tàmm moo tax mhm. doom boo ko yoree mu sol lu yem fii bu subaa mu génneel la jumbux bi te romb lay dem bu ginnaaw subaa bu ñu wenee moo génne dënnam doo ko weddi dëgg la muy lu am solo actualité leneen bëgg naa la ko doon tàggee yi ñuy tàggee ci réseau sociaux nit ñi vraiment ñaaw na trop fekk ne jot jot daaral nga tàggee ko man gis naa ci benn tàggee démb ñu bind ci repose en paix. dugal ko ci réseaux sociaux du ma wax. ba ma xëyee dama doon déglu information ndax dinaa ko dégg. ku toll noonu mun a génn àddina te média yi duñ ci wax. moom génn si guddi gi sax tontu moom moom xam nga dellooy loxo. moom moom fa nga delloo bàjjen maa ne élément. <laughs> dama tiit jërëjëf jërëjëf yàlla nañu bàyyi tàgge yi ñuy tàgge nit waaye. dañuy dëkkoon dañuy dëkkoon fan ci réew mi. fan yii rek def nañ ko benn ki benn kilifa bu mag boo xamante ni moom itamit jur na polémique boo xam ni. vraiment doy na waar daal. maa ne élément doy na trop. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatu soxna si la sargal di jox sa wàccuwaay man duma sénégalaise de waaye la ilaha illa allah def ci biir Mauritanie gii yàq nañu deru sénégalais am na quartier bu ñuy wax waxuma sax ba ca Nouadhibou bu Médina 3 bii ganu-ganu sax dañ ko tas léegi da gis ku ci jóge Sénégal am jëkkëram bàyyi ñëw fii bu dellu siwaatee daf fay sey su ñëwee jël benn policier wala benn militaire wala benn garde dëkkandoo kooku sëy kooku bu guddee ñuy dem di ràññi ca kër ya ñuy cagatoo jaay seen bopp ñëw ndax kooku moo leen di aar bu guddi jotee mooy dem xaar leen ba mu wàcc la muy def ànd ak ñoom ñu ànd ñibbisi ñëw nekk seen kër ñu yor borom nag daraam du manqué soo diggee seen néeg nga ni gong dara du fa manqué fu télé gën a magi lépp lépp lépp lépp lañu lañ fay def ku góor kooku nag moom lañu koy solal moom kenn mënu la ko wax basin ës bi fa mu gën a ës ba gën a riche moom la ñuy jëndal borom yére yu rafet lañu ko dàll yu rafet montre yu rafet téléphone bu gën a cher ñaaw na torop torop torop torop li ñu nekk fii ba kenn mënu koo wax nit ki nag man am naa loo xam ni ci waajuru ña nekk foofu laay wax. jërëjëf mu ngi noonu élément baa ngi noonu ñu ñëw ci euh, si li nga xamante ni rek mooy sunu thème. Mm-hmm. ni ñu ko waxee jigéen ak tukki yaakaar naa yaa indi élément bi. Mm-hmm. loo ci jëkk a commenté ba pare. xam nga am na benn maire bi wax nii nee na. Mm-hmm. boo génnee si yenn dëkk yi yow da ngay rus Sénégal. ndax yow sa boo nee sénégalais nga am na yenn ñaawte fi sénégalais di def. yow da nga koy rus da nëbb sa nationalité. Mm-hmm. léegi nag yow bu fekkante dañu dem ba deru Sénégal yàqu si bitim réew. Mm. ñun sénégalais yi dama xamul ñun fan lañu jëm. franchement parce que si jigéen ñi la ñuy wax. mais yow nga jóge sa dëkk ne sa yaay man kat maa ngi dem. tel mm. dëkk comme mm. Nouadhibou bi ñuy waxtaanee WhatsApp lu si bëri. ñu envoyé ay message yaa tuddaat Nouadhibou waaw man maa ko tuddaat parce que ñi dugg ñu si ëpp fa lañu dëkk. <laughs> maire bi nee na ma man def naa fi 35 ans mais li may gis sénégalaise di ko dund man damay rus a nekk mais dañ koy wax nag te dund nag. Mm, wax dëgg yàlla man de man de dootuma ko wax ndax dañ may xas te samay xarit lañ dañ ma mën a may mël fa lool. baadu. Mm. xam nga léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ni yow sénégalais nga foo dem war a chapeau. Mm. war a war a war a yor drapeau réew mi. mu nekk chapeau si yow. waaw sa neex ba nit ñi du rus a nekk ñi nga xamante ne ay sénégalais lañ wala ay sénégalais rus ko nekk. yaakaar naa war nañ defaraat suñuy toogaay ndax lu yàq jigéen moo ko yàq. affaire de mbëkkri do yooyu. waaw te jigéen ñi moom kumba noa di buy bëri nañ fa de maire bi nee na wax leen ci Kumba Nouadhibou Sénégal la ñuy jóge waa ji nee na ma ñaari daal naka noonu nit di yore eh, yendu ba ngoon ne da koy jaay dugg si kër yi wër. ñaari daal ñaari daal. waaw mu ne ma nekk si leen neex bu ñu fa duggee fekk fa koo xamante ne nii am pap bala bu leen kolaasee ñu ànd ak moom. mu ne ma wax leen si parce que ñun sénégalais yi góor ñi mu ñoo wax loolu ñun sénégale yi nekk foofu ruus nañu li fi sénégalais yi di def kon nañu defaraat seen toogaay. yóbbante nag àq la muy lu am solo buntu baa ngi noonu ngeen mën a wéy jaar ci indi seen xalaat man damaa ragal waa ni waa di parce que li ñu may yekk fan yi ci sama portable bi ëpp na euh, waaye nag euh, maa ngi nuyu bu baax Abdoulaye Sow nekk fële ca Saint-Louis ca raw maa ngi koy nuyu bu baax a baax sunu fans la sunu lépp la fàttewu ma euh, Ndeye Sofital maa ngi koy nuy bu baax borom Alpha Voyage di kontaan ci moom kontaan ci ki nga xamante ni rek mooy Bintu Rasoul bu Moustapha yaakaar naa ni li li li li ñu indi semaine bi mhm. da def la dab muy jigéen ñi nga xamante ni dañuy tukki ba pare dem moom seen bopp euh, def lu leen neex ba leen dal léeg-léeg muy indi lang gi nga xamante ne sax dañ koy lang mhm. ñu naan nag def def la li ñu nekkee tayu ko da koo naawtal moom bi mu fiy jógee xuloo woon nag wujju yaayam bi mu fiy jógee am na benn doomu baayam boo xamante ne tëkku woon na ko te fekk na booba sax loolu amu ci mhm. jigéen daal la nga ca wax mooy na toog këram mhm. loolu defe naa ne waxoon nga ko ci waaw loolu waxaan naa ko ci yaa ngi may ma rek ma jaale Aziz Ndiaye waaw bu suñu bàyyi Aly Ndiaye. moom sax la ñu waroon a ubbee nag sax wax dëgg yàlla li ñu kii fàbbi rek mooy mm. waxtaan bi. waaw waaye wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaal soxnaam. Mm-hmm. di ko jaal euh, famille Baye Aly yëpp rawatina suñu wëllëre Baye Ndiaye. nga xam ni soxna si soxna Aziz la woon waaye lépp la woon ci bàyyi ndax Baye tudd na ko doom. ndeysaan ngénneem ngénneem bii paase doom ji moom la ko tudde moom ndaw si la ko tuddee soxna ah. waaw soxna si nag nekkoon soxna su baax. nekk ndey rek. nekk ndey Aziz seede na ci moom seede yu am solo ci waawoon lañ ko denc mhm. tabaarkàlla def lu baax rek moo am solo dëgg la dëgg parce que koo dégg ci réew mi mhm. keroog déplacé wu na ñëw keroog ci waawoon fees na dell waaw fees dell mhm. àndandoog moom partagé ak moom li ko dal douleur bi mais ñu ngi koy jaale di ko masawu di ñaan ki dem yàlla ko yàlla yéegi ci barzak yonti yàlla Muhammad sallallahu li muy yaakaar ci ëttu maam Cheikh Seydi El Hadj Malick yàlla bu ci yaakaaram tas yàlla bu yaakaar benn yàlla Euh, euh, metti na daal. waaw yàlla mi ko jël moo ko gën ci noonu. dëgg la kon yàlla ko yàlla xare wallaay sunu borom dara safu ko. waaw dara safu ko bi ñu des ñu dellu siwaat ci li nga wax ci jigéen ak tukki. Mm-hmm. ci jigéen daal man ci man li ma comprendre man. Mm-hmm. bu ñu nee day tukki rek dafa fekk jëkkëram moo war a nekk fa mu nekk mu ànd ak moom dem fa. Mm-hmm. mais jigéen ju gàdd ab sërëm ni damay dem réew réew. man daa ko man damaa d'accordul sax jigéen joo xam ne dangaa ñëw ndakaaru gii ci biir réew mi jóge Tiwaawan yow donc individuellement nekk fi loolu laa jëkk a ñàkk a d'accord mm, wax ma la da nga jël avion dem bari na fi léegi de xam nga parce que liberté bi nga xam ne moom moom la parce que gis nga bu ñu nee parité mm-hmm. gis nga baatu parité boobu ñuy wax ci diggante góor ak jigéen mm-hmm. mais dafa am fu mu yem mm-hmm. dafa am fu mu yem parce que jigéen sunu borom daf ko sécuriser daf ko protéger parce que dooleem bariwul li war a am mooy kenn xañu ko pour mu liggéey mm. mais itam liggéeyam am na limite parce que alxuraan dafa ni rijaalun xawaamuna ala nisaa mm. gis nga góor lu lu lu mu metti metti muy kilifa jigéen. dëgg la kon am na responsabilité boo xamante ni. Mm. góor moo ko war a jël mais pas jigéen. jigéen ju gàddu ab siram moom dong <coughs> di jigéen ju ndaw. Mm. ak ni àll bi méttee. Mm. nga mën a dem yow kese ni damay daan sama doole. mais daanoo sa doole da ngaa bëgg a nekk ci li la neex. man de jigéen ju ma yilif laa wax jigéen ju ma yilif. mukk dooma tàggu ni ma damay dem bitim réew dem tukki te sa jëkkër nekk fa. muy sama doom muy sama ku ma am ci yow dogal. parce que man sax dafa am yenn dafa am réew yoo xamante ni wax dëgg yàlla. man daal man daal man daal man daal man daal am na réew yoo xamante ni xam nga nit ñi lu ñuy jaawale. jaral jaraluma wàcc dara. Sénégal wóor na yàlla xamam nit ñi lu ñuy jaawale. waaw gis nga xaalis du priorité xamoo. déedéet. Serigne Abdoul Ahad Mbacké dafa wax ni. Hmm. li ñu war a denc ci coffre yi. waaw mooy wax yu baax yi nga xam ni waxtu woo demee ba nar a tas xiis. waaw nga ubbi sa waxande génn ci. génn ci benn dëgg la. ñu ne ko góor gi xaalis la ñu defe noonu la ñuy def ci coffre mu ne xaalis ne la rek. Mm. pour jënd ataaya ak biscuit la rek. kese parce que parce que jikko. moo gën xaalis. dëgg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom taggewu ko dara lu dul jikko ju baax bàyyi na fa deret bàyyi fa xaalis bàyyi fa taar bàyyi fa lépp jigéen ñi nañu delloo si waat xam ne xaalis bi ñuy wut lu ñu koy doyee moo ma jaaxal Seydina Ali nee na benn jigéen bu fakkastalu nee na univers bi lépp moo fakkastalu man li man li koy wutee jarbaat fañ nga man wax dëgg yàlla nag du ma sama kër gi naan maa ngi dem Gambie pour wuti lu ma am dëgg dëgg du ma ëpp sama kër gi naan maa ngi dem Mauritanie jàng fa am pagaay waaw ma ne la dama ne man du ma ëpp sama kër ne maa ngi dem Gambie dénkaane sama njaboot du ma xam ci lu ñu nekk du ma xam ndax ñu ngi leen di violer du ma xam ndax ñu ngi leen di riisu du ma xam ndax ñu ngi leen di jàngal lu bon nan damay dem Gàmbi gii di wut lu ma am waxuma Gàmbi dara amu fa de cest à dama leen def lu ma nar a wuti Gàmbi ma ñëw senegal bu ma ko fi defee dinaa ko am. dëgg la te li gën a doy waar mooy euh, wax naa ko keroog mooy xeeb xeeb liggéey. gis nga ndoorte loo gis day sew. des fois man ki sama famille day ñëw man damaa bëggoon liggéey ba ma wutaloon liggéey Dakar man la fa ma tegoon taabal ja. Mm-hmm. dama teg fa taabal ja ba Ndakaaru fekk la fa. cest à dafa am liggéey yoo xamante ni da koy xeeb te dafa barkeel parce que yow bu la leeree ni boo xëyee suba am loo jëndee ndékki am loo ko disee am yaay jàppal ci lii ñu def ci añ bi reer moom su ma neexee def sama cere ak moom su ma neexee def sama lépp te du ma leb kenn du ma ñaani kenn sama biir dina fees ma jàpp ci loolu ba yàlla indi leneen mais bëgg a dem Mauritanie fa laay daane sama doole restaurant boo ko bëggee ubbi Mauritanie ubbi ko Dakar dëgg dëgg ubbi ko Dakar day jar mais may la xam nga tonton Baba Ndiébe lu mu waxoon keroog tukki mayewul xaalis dafay dajale wërs may yokkul wërsëg dafay dajale daf koy dajale daf koy dajale waaw mais lépp li ngay def bitim réew di ko kërti kër di si sonn boo ko defee sa réew di ko am xam nga kookuy ñëw ne dafa bëgg table dafa bëgg nga may ko fond waaw man ma xool ko xam ne wér na waaw moo ma long moo ma large macha allah dama koy wax pour fond bi man nga commencé boo amee ñeenti fóot waaw am nga fond kan moo la may te fond bi ñu lay waxuñu fond tàngal waxuñu fond wu fond fond yu sew sewaan yooyu fond boo xamante ni fu ma mën a bouger di dem di ñëw jënd samay diwtiir samay nangam sangam man bu ma ko amoon fond boobu damay jaay géej yéet man di ko boole ci salaire barke rasulullaay wàññi boo gis benn lay doore njaay dafa neex te barkeel dëgg la njaay dafa neex te barkeel jigéen ñi nañu takk seen digg tokki Sénégal gi jaay uuf seen doom yi nga débrouiller ko sa bopp mais bu fekkee da bëgg a taxaw fii si buntu ne ko ma fond pour ma te Adja Mbaye ak yorul fond bu mu la may xam nga dafay metti déggoo man la su ma amoon ñaar fukki junni yóbbante ko jawbe waaw mu ngi noonu ñu jëndal ma ci géej ak yéet ak tege dege hmm. léegi bu fekkante ne yow xam nga ni lii mën naa ko def lii man naa ko def pour mën si am dara hmm. parce que wàññi boo gis benn lay doore nga dem fóot ñeenti fóot am dem jël ko jënd sa nangam ak nangam sa omo yooyu ngay wax man ko commencé yow lii bu demee ba nekk ay milliards wala sa doom ñëw jàppale da ngay xam ne lii kat man maa ko ñaqoon mu lew ma doom xam nga kilo omo 800 ah. lay jar waaw ci peese bi mhm. genn waa libre ordre sawelu doom dama ko xam nag mhm. genn waa libre ordre sawelu doom téeméer lay jar gis nga boo ko mbuusee di boo ko mbuusee di nga ci am ñaar téeméer ci ordre sawel bi ci ak lu teg mën na bañ a nekk ci journée bi sax omo bi nga jaay ko te daf lay leer ne yow ku xëy di nga yónni sa doom omo pour raxas mhm. ku xëy di nga yónni sa doom omo pour ordre sawel ma xool xool koñ bi xam ne xale yaa ngay jóge ci bitig ba ma teg sama palaat def sama ordre sawel ak sama omo mhm. su ma jaayee léegi ma am départ bu subaa dama ciy dolli bulo bu ginnaaw subaa weexal bi ñëw nga dem ba mu nekk loo xamante ni as ruq lay doon kon jigéen ñi nañu toog ci réew mi te liggéey ba ñu ma ko dem itali ba ñu ma ko dem Espagne de ba ñu ma ko dem France waaye daal dama ne du ma fi ub sama njaboot ñu gën a tooy xepp ma di ko dénk sama yaay naan maa ngi dem Gambie wut ma am ci loo xamante ni woowu ñu ma ne ma entreprise bi nee na ubbi na daf lay jël ci lii chaque weer di nga dem seet sa njaboot lu dul dama koy tante ji rek. man du Gambie du ma ko jaral Mauritanie jaral ma ko Gabon jaral ma ko Congo jaral ma ko. Afrique fenn jaru ko xam nga li nga wax nii dama gis ku jigéen ko xam dañ ko maye 2 mois. waaw mu ne jëkkër ji dama am ay papiers yu ma déposé woon. waaw mu bëgg a dem France jëkkër ji ne ko ok demal mais fi mu toll nii jëkkër ji mooy souffrir. su ko nangoo ah mais bu ko nee na ma tey fi tey su ma ko terewoon ñu ne def ko iñaane Ah, ma bàyyi la wala ma dem wuti keneen. waaw léegi mu ngi noonu léegi nag yow jigéen njaw bu demee ba nekk ci sëy. des it ah. góor ñi. liñ ciy dugglu mooy. Ah. dem na France mi ngi may yónnee yor ma nga toog ci kër gi. nga nga yor ma nga toog ci kër gi. waaw léegi ba jamono doxee du góor moo waroon yor jigéen. waaw léegi boo toogee ba jigéen di la yor da ngay noppi. waaw bu dee boobu moom da ngay noppi. da teg sa gémmiñ. waaw mais tamit xam nga jigéen bu dee ba ñu maye ko. Hmm. warul def sacrifice bàyyi fi borom këram dem na day uti koom-koomu àdduna. borom kër ci lan lay liggéey. non non xam nga même bu ñu waxee ci <laughs> loolu laay bañ. Ah, da nga amaat beneen élément. waaw beneen élément ngi fi. <laughs> tëdd rek bu madam bu madam ñëwee fekk la ci kaw lal bi. buy dem bàyyiwaat la ci kaw lal bi te bu bëggee sieste sax far ñëw nga xat-xatloog moom ci lal bi. kooku moom dagan na waxuma la France sax waaye jéggil de jéggil dem ba Canada. <laughs> noppi lay def parce que yaa ko yor élément. wasalaamaaleykum waa Wassam maa ko dund Euh, tey seen émission bi seen débat bi ngeen wax bi am na solo trop am na solo trop te li ñu lépp li ngeen wax si naachot fii rek ñi ñaa koy dund rek ñoo koy dund li nga jigéen ñi fi nekk ñi daan seen doole macha allah ñoo ngi dund loo xam ne euh, mënuñu ko wax kenn mënu xëy dem yooxu ñun ñii ci kër naar yi dañuy liggéey te xool da nga ca saa ñu créé la problème boo xam ne doo xam noo koy dundee doo xam noo foo koy waxee wala ñu indi la problème boo xam ne mooy loolu doo xam daal lu mu demee noonu wala wala eh, wala ñu liggéey la liggéey la ba weer dee war la fay fay ñu la la da nga sàcc sama or wala sàcc sàcc sama jamaa dem léegi bu ñu naree indi police bi ñu dem beneen police boo xam ne kenn xamul fu mu nekk ndax seen mbokk fa nekk liggéey ñu yóbbu tëj la fa fàtte la fa yóbbu sa ay dossier di def am def ay matériels yoo xam ne mënoo xam ne ko di ndax man sama ay xarit dund na ko sama ay rakk dund ko ak dugal nañ ci problème yoo xam ne mosuñu xalaat ne duñ koy duñ koy ne duñ koy def jiñ leen sàcc or or kese duñ leen jiñ sàcc kat ñu duñ koy sàcc yàlla xam ne sàcc ñu ko yësoon liggéey loolu daal ñu rek liggéey loolu weer de fay ñu daal ñu tegalal ñaari weer fay ñu leen daal ñu àcc leen woon léegi ñaari weer yooyu ñu leen liggéey la bëgg leen ko fay fay ci leen ko yow léegi ñu ji leen sàcc or ba pare jël xaalis boobu yëpp ñu fay xaalis or boobu ba pare nag ñun ñu ñàkk suñu ñaari weer weer yi ñu fi liggéey lu ne li ni xalaat ni ñu ngi ko dund fii si nature lu ko raw doomu aadama yaa ngi koy dund dafa fekk kay amoo foo ko jooyee amoo foo ko waxee ndax ambassade bi suñu moo waroon jàppale suñu ay ay nitam def ci benn devoir da ngay am problème dem ba foofu lu ne sa lijjët duñ la xool duñu xam sa ndax yaa ngi wax kon nag ñun waa euh, étranger yi nekk yi àll suñu ambassade war na def devoir si ñun dëgg la ñu buggee nee sa réew dem beneen réew fas jom ak daan sa doole mool fu yóbbu ñun liggéey ñi nag ñoo ngi liggéey ñi nga xam ne liggéey ñu liggéeyuñu waaw waaye nag métti na lu ñuy dund fii kenn mënu ko wax métti na trop ba sa kanamu yàlla jërëjëf euh, beneen élément baa ngi noonu jarbaat sa commentaire rapidement parce que sunu temps mi ngi dem. waaw parce que moom itam indi na lu am solo. waaw nga jël nit ki di ko liggéeyloo. parce que mm. dama jigéen ñu bëri dañuy ñëw ba tey maa ngi noor di bu de. waaw mu mu maa ngi si yéen de ba tey ndax tem ba fa la jógee woon léegi nee na ñoom ñoom tamit dañu am euh, ñu nekk foofu ndax yow dañu lay jël mm. ba ci biir ne mënuñu la ko fay ñu jiiñ la sàcc wala dara te nee nga ñoom ku dajoog ñoom boo nee rumkum yow la ñu yóotu tëj léegi duñ la laaj nee na ma ko aussi bari na ay sénégalaises yoo a seet tam kaso euh, dafa jéggi dem Espagne ndax dafa jéggi dem Maroc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax di seet prison yi xamante ni moo nekk foofu ca Nouadhibou parce que bari na ay sénégalais yoo xam am na benn maire bu ñu ma doon sax ne mu nga fa mhm. loolu élément boobu mën lañ ko yónnee woon benn maire boo xamante ni mu nga fa te maire bi liñ ko jiiñ mooy sàcc ma nga fa xam naa ne ay doomam xamuñ ci lu mu nekk te ma nga fa lañ ko jiiñ mooy sàcc ba tëj ko ci kaso bi waxuñu sax waxu àtte leen wala dara donc yooyu yëpp daal dafay delloo siwaat rek li ma doon wax ne am na loo xam ne boo ko soxlaa Sénégal gii am ko te it jafe-jafe boo xamante ni yaa ngi nekk Sénégal tey jii du ma ko natt ci kenn tey bu fekkonte ni woon dañ na mbaye nga nga rëbës sama yaay au moins dina xam ne ma nga maa nga rëbës bu ngoon jotee mën naa tibb boolu ceeb yàlla tere yónnee ma pour ma lekk mhm. mais yow foo xamante ni Nouadhibou la xamoo ci lu mu nekk yan condition la nekkee et utiliser bi ñu leen di utiliser mhm. dégg naa ñu ne euh, nit ku weex du ma parce que boo tuddee xeet ñu ne lu tax muy wax diw mmh, bu seen jabar gisee baax sax mii na daan doole bi ci kër gi moom la ñuy jël jëfandikoo waaw léegi nag boo bañee boo bañee ñu indi la problème jiñ la sàcc wala tëj lu la waral dara. Eh bien te ndaw si nee na ma fàttali nga ma naari. Euh, euh, <laughs> yaa naar <laughs> ñu jigéen ñi ñu jigéen ñi dañoo fiir te xam nga sénégalais tabarkaale ñoo jonga ma léegi nag des fois sax mën nga bi ñu ak moom dara ak jëkkër ji mais mu sonné la rek fiire la ak jëkkër ji tuumaal la dem tëj la ñu bëri seen mbokk yi foog nañ ne dañoo nekk si leen toog ci réew mi daal lan war a def ngi leen a tëj toog ci réew mi mm. lan war a def jigéen na toog mm. bu na ko takkee mu dem sëy jigéen juy tukki di wutu xaalis amul fenn nit ñi nañu wax waa mi dëgg yi nañu téye seen doom yu jigéen yi liberté bi am ci xale yu jigéen yee jaaduwul parce que ku sëy ñaari weer ñetti weer tas gàddu sam saak aw yoonu Mauritanie mbaa nga dem Espagne. ndeysaan waccal waccal waccal sa yaay pocaxtaan mun na ndeysaan dafa am benn jigéen bu ma woo téléphone ni ma. Mm. di ma laaj ay conseil quoi wax ma ni ma boo dafa am benn xaritam bu nekk à l'étranger. nee na dafa bëggoon mu fekk ko foofu pour ñu bokk ñu liggéey. Mm. mais man leen moo ma jaaxal parce que dama am dama jaboot am naa ñeenti doom. Mm. léegi te sama yaay dundul nan laa war a def. Mm-hmm. ma ne ko man de leen laa lay digal bu doon man a mun maa ma ne ko duma dem ndax sa doom yii mun maa ma ne ko boo leen fi bàyyee amoo amoo amoo ku leen yor te boo leen fi bàyyi dina leen jural tumuranke boo xam ne la nga doon wuti ci àll ba di ko dabu dina leen jural problème yu ëpp yooyu ci réew mi dëgg la kon nag encadré sa njaboot bu nu màggee ëllëg man laa yor mm. moo ëpp doole ngay dem di dabu ji 1000 francs yoo xam ne xamoo di ci jotom déet wala bala nga cee jot tas voilà il jigéen ji ñu gëm loolu mm. ko war a wax mm. ndax yaay may xale boo boo xoolee lii divorce ci ci Sénégal. Mm. war nga xam ne parent yi am nañu responsabilité ci xale yu jigéen yi pour contrôler leen pour ñu yar leen pour ñu toppatoo seen borom kër yi ñu leen may ñu sëy. Mm-hmm. parce que liberté bi dafa ëpp xale bu jigéen bu tas dem nga noo ko mën a regle ba fexe ba am soo natel buy daanu ci sa ginnaaw gi di nga ko wut. gàddu saf saag luye di sa appartement boo tukkilee appartement yaa ngi toj réew yi moom. bu ngeen ko daawul jënd bu ñu génnee ci biti moom bu ñu leen ko jëndalee moom dagan na. waaw non du problème. Hmm. mais am ko ci amin boo xam ne bu nobbul la. mais takk cheveux <laughs> woon suñu koñ bi mu ne naa mu ne ñoom ñëpp chambre salle de bain euh, kii la uti ji woon ay meuble. ay meuble ko naa mu ne pour mën a occuper seen kër. xoolal loolu. mu ne ma ñoom ñëpp dellusiwaat nañu jàkkaarloo yi fi gisoo ma naa mu ne ma yépp mariage deful deux mois deux mois ñëpp ñëpp si waat nañu. est-ce que naa ko yaayam ak baayam. waaw loolu mooy lan. ak lay taay ya la am mu ngi ma loo njëkk a gis ak boo gisee loo xam génnaat bu defee. delloo yaayam dëgg deux semaines baax na. delloo dëgg ak lay taay yaag yëpp nga boole ko delloo ko ko. <laughs> ana muñ. ana muñ. Ah, xale yi jigéen ñi muñ leen. yow de mu muñ daal la lan war a yow de kii day gis nga tey jii mën naa fara xale yu jigéen yi moom mu tiriyaande leen mais daal man daal li ma bëgg daal nit kii wayjur itam nañ ci bàyyi xel bu baax gis nga doom bu dee jigéen la ne la yaay kat dama am sama benn copine boo xamante ni ma nga nii wala ma nga gàmbi nee na ma daal utal na ma fa place boo xamante ni war naa caa mën a am cent mille francs par mois te yaay xam nga li ñu nekkee nii nangam sangam teel ma sama doom ma dem ñëw bañal mm-hmm. loolu cent mille francs cent mille problème la lay indil cent mille kàddu cent mille commentaire euh, jëlal sa doom ne ko nañu muñ la bay daan dundee ba sax sikkim mën na cee jàpp ba yeewu dee nga toog ci sa wetu waajur wi xam nga cinquante mille yoo xamante ni dañ la koy fay Sénégal wala trente mille sax bu la neexee mhm. nga ne damay dem euh, euh, Mauritanie wala damay dem Gambie wala damay dem Guinée wuti ji fa liggéey boo xamante ne cent mille laa ci am après da ngay luyee foofu cent mille li ci wàññeeku au moins di nga fay vingt wala vingt cinq mille néeg ba même boo ko bokkantee mu des soixante mille mhm. di nga lekk daan nga xëy suba jënd kilo mburu bokk kook sa yaay ngeen teg seen baxal bëccëg bi ngeen lekk ko mhm. da dem jënd sa bopp lekk bu fekkente ni journée bi mille francs la mhm. weer wi du nekk trente mille bu fekkee journée bi cinq cent la weer bi du nekk quinze mille muy quarante cinq mille lu des ca cent mille ya nga xamante ni moom nga jënde woon trente mille fii cinquante cinq mille nga war a xool war mën a mandat say wayjur wala ñu woo la sa doom a ngi lay gelu balaa weer wee dee ñu lebal la ordonnance nga fay loolu loo dese. jeexal dese woo dara. du def calcul kon man je préfère man ma toog fii ci dëkk bi. waaw ngeen di gisante. te billaahi jigéen ñu ci xamoon li nekk seen ak Colobane gii. Mhm. budget ngi fi de. wallaay bon ah, gis nga mère xale ba. yoroo sa juróomi junni rek woo ma téléphone. non yoroo sa juróomi junni rek woo ma téléphone. ñoom ñoo koy xeeb ñoom ñooy xeeb. ñoom dañuy xale ba dafa waaxu ba ñëw toog maam ja ne ko doom lu xew mënu ko waaye maam da waa sonn trop jaay naa ba sonn mu ne ko sonn gën jaaxle. Mhm. xam nga sonn moo gën jaaxle. waaye tamit am na loo xamante nii tamit daf ko bàyyil xel sa bopp ni ngoro ngi fi. El mhm. Hadj Abdoul Aziz Guèye maa ngi koy nuyu. de passage ma nga ko Tiwaawan. dafay faral di wax ne mhm. lii raam ci ñag bi la jëm. mu ni nit amul ndono bu jëm ci ñag. dëgg la nit amul ndono bu jëm ci ñag. il faut nit ñi. ñu ñu ñu dellu siwaat xam ne xaalis du priorité mhm. ngor a ko gën mhm. nañu delloo seen am ngor maa ngi nuyu bu baax a baax nag honorable député Marie Sow mhm. di doomu Pikine di deputé PDS di jigéen sama jigéen bu baax yaay Mbayang euh, euh, honorable daal xam naa ni bëgg naa ngeen xamante parce que nit ku baax la te defkat lu baax la maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu waa Pikine yëpp nuyu sama frère di sama xarit a Gakou ma nga ci Kédougou di doomu Tivaouane moom itam maa ngi koy nuyu di ko léegi dem nga ba Kédougou waa xam nga ma ñëwal ci xale bu réer bi balaa parce que nag sunu mbokk la moo xamante ni moo fi nekk maa ne. dimbali ma rek ñaanal ma Grégoire une minute. parce que dama ko fàtte woon xale bi mi ngi tudd Awa Camara mi ngi dëkk Daaru Rahman 4. Euh, mi ngi réer depuis 10 jours euh, defuñu ci ay atam nag euh, depuis 10 jours daal le 10 janvier 2020 si la réer moom moom di Awa Camara. nga dëkk Daaru Rahman képp koo xamante ni xam nga ci moom dara nga euh, dimbaliñ ci rek mu ngi réer depuis le 10 janvier 2020 euh, euh, si la réer xam naa élément bi ñëwul Grégoire kon nañu baal suba dinañ ci ñëw insha allahu taala dinaa ñëwit ci Mouhamed Diop mu nga fële ca diwaanu Mauritanie moom laa waroon a dalal démb sama marabu bu ñaawul boobu nga xamante ni def fi daray defoo suba insha allah dinaa ñëw jox leen numéro am ci Mauritanie ndax nag arrêt bi ma defoon moom moo def retard boobu le maa ngi ko ciy jéglu bu baax jarbaat tàggool waaw di jaajëfal ñëpp rek di jox ñëpp rendez-vous si whatsapp maa ko dund bi 77 614 51 15 waaye di jaajëfal bint euh, Daba Diaw mu nga xamante ne moo génn fii si robe bi ak coiffure bi mm. ñu mën ko jot 77 363 21 21 bu ngeen bëggee coiffure rafet yëpp te waa man da xaw ma gars yi lu ñuy xaar nag mm. ah gars yi lu ñuy xaar nag moo ma jaaxal dégg gars yi war na ñoo ñëw nag <laughs> mais yaay maa ngi nuyu Mandiaye Diop sama rakk ji ak Serigne Mbaye defal kër gee ak wax ju bari